Kan wa match bo xamne tam tay bien que gagné wuñu match ñu def eh, 1-1 eh, contre l'AS Pekin mën nañ ci sigi dem parce que li ñu woné tay bo amna lu ci dal xel lu bari bien que né amna leen lo xamne won nañ ko mëna bloc bas euh, wala médian est-ce que loolu ngeen pare woon tey waaw pare nañu lool parce que tey AS Pikine booy xool tamit dafay jouer long indi ay joueurs d'impact yoo xam ne dañuy dal dañuy daw euh, baax na tamit de temps en temps nga wàcc suuf baax tamit de temps en en des situations qui se présentent nga profité ci li nga xam ne day am ci ginnaaw ñu ñu mën a dem ci kanam. da waaw ragaluñu ragaluñu comme ni ma ko waxee sànq rek commencement bi attaquant benn moo fa nekkoon exemple yi xawoon solo tuuti mais bi ñu nañ gis jeu bi mu gën a leer ci ci ci xale yi. waaw loolu du ñàkk mag d'expérience am am na ci waaye ñun tam bon football nañ ñu ngi leen di encadré am na loo xam te mën nañ ko indil buñ ci yàggee tuuti xëy na dinañ gisaat beneen kalamu Dakar Sacré-Cœur bien que ne ay xale lañ.